bu yaakaar ne ñun fu ñu jógee ñun suñu jógee dañu ko xam de nga ñun Pastef ci ñun bu bi rek parce que dañoo bëgg a jëm yéen a ngi nax seen bopp ñu ngi nax Sénégal yi ñun dañoo toogoon entre quatre mille yor suñu liggéey xalaatuñu woon mais bu ñu ni Sénégal bii suñu jógut suñu jëm du baax ñun dañoo jóg. asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam yéen a safoo chaîne bi di Télé Futur tey jii mun nañ ne benn kàddu bi la ñëpp am jamono guñ toll nii benn gis-gis bi la ba ñu bëri ci sénégalais yi am jamono guñ toll nii benn conviction bi moom la ñëpp am jamono guñ toll ci sénégalais yi ndax kat dañaa gis ni ki nga xam ni moo di président Ousmane Sonko jamono guñ toll nii nekk na ki nga xam ni moo di yaakaar réew mi yaakaar ndaw ñi yaakaar ci li nga xam ni opposant bi taxaw gën a taxaw sonal kii di mag sàll ba loolu sax dañ jàpp moom mi suñ ko teelul soutenir teel ko jàppale ëllëg problème mun na am dañuy sax déglu kàddu yi nga xam Sonko nag ñoo ñëwoon yoon bi Sonko dafa ñëw mët njiit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñun ay cadre ñu bàyyi suñu lépp ànd ak moom Sonko moom bu ko président Macky Sall di laal day laalaale képp koo xam daf bokk ci Sonko kooku moom wax la te ñun dañ cee pare pare man li wax yow damaa pare joxe sama bakkan ah man maa loolu c'est sérieusement je te dis ici man sama bopp man mhm. yor njaboot yor entreprise yor lépp man damaa pare joxe sama bakkan bu laale président Ousmane Sonko. Hmm? waaw waaw waaw confrontation bi. xam nga Ousmane Sonko fi ñu jógee yëpp l'article fouillé de Genappe. oui ma je te dis ici je te dis ici je te dis ici on vient de très loin. ñu ngi caaxaan ngi ko xam maa ngi dégg Thierno mu wax sànq naan non da nga la baax waaw waaw baax dëgg la ñu ci ay valeur la ñu yar ñu xam fu xam ñu jógee. jàng Sénégal bii rekkee Sénégal bii di fayee impôt biir Sénégal bii yor fi njaboot boo xam ne dañuy bëgg mu tekki suba ñu mhm. yaakaaroon ne bi delloo ginnaaw dañuy jëmale kanam rek président Macky Sall mu ne moom tey jii daf ñu choisiral ki nga xam ne moom moo ñu war a yor 2024 ñu ñu seetaan ko kooku du xoolal kooku ñoom ñu toll li tax ñoom xam naa ne suñ toll suñ toll mooy dañuy testé xool ndax ñun la ñu defoon danañ ko defaat yàlla xam ne nañ loolu toll ñu tafatal ay nit ci président Ousmane Sonko ñu xeex yéen a yëg yéen yeneen projet yéen ne raay Thiès ay xeer la dafa nekk moo wax la mile patriote bi dafa jàppale kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko coowal tekki Ousmane Sonko Adji Sarr bile moom xam ne ne bu baax a baax bàyyi nañ lépp seen lépp ngir taxaw Sénégal mucc ngir taxaw kat def démocrate am pi bu baax a baax ci loolu naataango Ousmane sonk yi la képp koo jël ku nekk kàddu yooyu lay xamle ak di ko yëkkati fexee la tout ngir Sénégal gi mucc président bi mucc ndax kat li daloon kii di président Mamadou Dia duñ nangu benn yoon muy dalaat ci keneen seen leader rawat moom mii di Ousmane Sonko ba tax na lépp loo xam mun nañ ko def pour défendre ko pour fexee li nga xam ne moo di projet mucc ci jàmm ak salaam danañ ko def ndax kat gisuñu lu dul jàmbir réew mi waaye tamit gisuñu lu dul seen leader di xam ni booba ba léegi wootewul lu jàmb ak salaam taxaw ne nekk ki nga xam ni dafa défendre ba bax ba am li mu am ci mim du Sénégal ci loolee sax la jàpp ni ki nga xam ni moo di jamono guñ toll nii di nguur gi la bëggul lu dul yàq ak naxasal bi naxasal candidature kii di Ousmane Sonko waaye ñoom ñee gëm nañu loolu du am mukk ndax kat lañuy ñuy ba mu jeex tàkk ak